nee naa la sénégalais yi sénégalais yi déglu ma joor histoire laa lay wax. waaw sénégalais yi bu góor jigéen ñi téye seen loxo du ñu dund. sénégalais yi nekk mm-hmm. Europe yëpp genn wàll gi këyitu góor jigéen la ñu am. association góor jigéen yee leen di doole ñoo leen di jox lu ñu lekk ñoo leen di jox lu ñu naan. thank dem nga Europe man dem naa fu ne. man fu ma dem sénégalais yi duñ may wër mbaaya may ma may ma may may tarifaat yaag fan la xeeg naas di leen sarax. gis nga sama sinaab bi di leen may kayitu góor jigéen la ñuy dundee aadamoo kayitu góor jigéen la am aadamoo góor jigéen la day jaay góor man bu ma neexoon tey ma taxaw naan kii sama gel la datam ndayam nit ñi dañ koy gëm sénégalais dof lañu loo leen wax ñu gëm ko ku mën a bàyyi yàlla bàyyi yonent bi dem di gëm ay nit naan ko yaaw yow laa jox sama àddina ak sama àllaaxira kooku lu lu ko aadamoo wax da koy gëm kayitu góor jigéen la yor ku toj la fal ndayam la góor jigéen la dañ koy katt ci bun di ko katt ci poqotaan di ko katt ci nopp di ko katt ci paxu bakkan damay dugg ci la fal ndayam moom aadamoo mm-hmm. saa bu ma xëyee dinaa ko vocal yónnee ko ko ba pare subaa daal nañ tas ma yónnee leen vocal nañ ko na ma journaliste yi message ma dugal vocalu aadamooy YouTube very good. maa ngi jël voice su aadama moo yëpp ma dugal ko YouTube yi ma ko yónnee. Pambay Pambay. ñel na buur bu sell bi nga xam ne moo bind àdduna ak àllaaxira yi rabbil alamin alamin mooy lépp lépp loo mën a gis lépp loo mën a xalaateeg mooy alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñëwaat ne arrahman arrahim arrahman mooy yërmande borom yërmande gi nga xam ne mooy yërëm ki ko neex arrahman fii ci addina yàlla mooy yërëm ñëpp yërmande yàlla googu arraxmaan ci la ñëpp ne muy man mii di góor jigéen ñu may wax kee di caga bi ñu koy wax kee di lesbienne bi ñu koy wax ki gëm yàlla ki gëmul yàlla mala bi yéeféer bi ñëpp ci yërmande googu lañuy dund muy arraxmaan arraxiim mooy borom yërmande gu màgg a màgg gi yërmande googu nag yàlla mi koy ubbi ëllëg yommal xiyaam te mi koy ubbil ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon topp ko di ko jaamu arraxim yàlla mi ngi koy jox ñi nga xam ne ñoo ko toppoon di ko jaamu gëm ko kennal ko bokkaale wuñ ko dara buñ dajee buñ taxawee bésu yommal xiyaam ci bés ba bés bi nga xam ne bés bi nga xam ne amul kenn tey fii la àddina bi neex de fii la coow li neex nit lekk sa ceeb ba mu neex nit naan sa ji bu sedd guy naan sa ataaya sol sa jasneer bu saf sàpp say jékk wër la say compte bancaire fees say oto taxaw nga dëkk ci sa pale di jaagar jaagari boo waxee ñu ne ëskey ngay wax lu la neex waaye bu ëllëgee yombal xiyaam ba ñëpp ne dung kenn du sol yëre doomu aadama dafa bari pexe te ñeme tëb miir ñeme galgal yàlla xam leen ci seen pexe yàlla xam leen ci seen bari fit yàlla xam leen ci seen bari galgal rawatina sénégalais yi yàlla day jël doomu aadama yi jël jinne yi ñu wër doomu aadama yi te jinne yi ñoo ëpp doomu aadama yi te doomu aadama ñemewul ginne moo tax yàlla nëbbuñu jinne yi bañ nañ ko ba bu nit jinne gisee bu nit gisee jinne dañ naan dafa jommi bu nit gisee jinne dañ naan dafa jommi ndax ni jinne bindoo moo tax yàlla nëbbu ñu ko ci mbëggeel gim ñu mbëgg jinne yi ñemewuñu malaaka yi bu ñu gisee malaaka yi dañuy dañuy seey dañuy exploser parce que bind bu ñàng ak bindu bu magg bi yàlla bind malaaka yi léegi nii doomu aadama yooyu nga xam ne yàlla jël na leen teg leen jinne yi wër leen malaaka yi wër jinne yi xam nga foofu foo rëccee am fa muy bis boobu ay man sàngo ne biram jigéen bu ma nekkee yomal xiyaam ba tourné yam ci kanamu jinne ba yuuxu ba ne waay waay waay waay naa yàlla ci la may yërëmee ne leen génne leen ko ci raa bi ndax du ma noppi man mënumaa xool jinne maa may xool malaaka moo tax fu ma julli yaa ngi ñaan yàlla yàlla yërëm ma kon tey bu ñu demee ba toll ci bés boobu nga xam ne ndey danaan doom juruma la ak ni doom fooree ak ni yaay fooree baay foor baay danaan doom juruma la tànta danaan doom bokkuma ak yow ki nga gën a bëgg bu la jegee danga naan yàlla am jël ko dugal ko safara te rëccal ma ki nga gën a bëgg sa doom sa jëkkër sa yaay su la jegee danga naan yàlla am jël ko dugal ko safara nga rëccël ma ndax bés bu metti bés bu tàng foofu nag ci la arrahman di am solo yàlla yërëm ci ñëpp yàlla nañu ci yàlla dugal dugal ci mbooloo mi jullit ak bépp doomu aadama arrahman arrahim ki yow mi diin yéen ñi topp naan diw buur la diw moo màgg kii moo màgg kii moo sedd kii moo sell kii moo tedd kii moo kawe kii mooy buur kii mooy kilifa kii mooy nangam déedéet yàlla nee na maaliki mi diin benn buur doo nga am te bésu penc lay taxaw muy man yàlla may maaliki yow mi diin muy bésu yombal qiyaam boobaa ngeen gis nag lu leen bu boobaa yuuxu jëpp fu ngeen ko fogewul bu boobaa ngeen gis koo xam ne da ngeen naan laa ilaaha illallaah diw moo yor caabi àjjana diw moy mooy dugalaate àjjana diw lañu ñu xoolal nga seen ko muy supp jalañ di yuuxu di prier nan yalla fuma jëm dimbali ma dimbali ma dimbali ma ku ko mu biti la loxo tel tel tel tel ngay prier yalla kenn la maliki yawmi din iyyaka wa iyyaka nasta'in li réeral doomu aadama yépp réeral sénégalais yépp réeral jullit yépp yépp yépp mooy kàddu gi lañuy wax ci chaque jour te duñ ko sóoraale xamuñu li kàddu bi di jëriñ iyaaka nax wa iyaaka nastahin yàlla yow dong lay jaamu yow dong lay sàkku ndimbal chaque jour ngeen wax ko waaye du ngeen ko jëfee parce que boo nee yàlla yow dong lay jaamu yow lay pare jamono bi ngay julli tak nyari nyari ñaari ñaari ñaari ndomb ci sa loxo bi takk juróom ñetti ci sa jël ay xaawteg jël ay fasaki ay laax soo yeewoo yaa ngi jël biteel bu mel ni ngalax diw ko ci sa yaram wi xasaw xunnu raay ko ci sa kanam am na beneen biteel bu mel ni zi di tax ñu ne la mooy ubbi wërsëg nga ne ko nii ñu jox la zi biteel bu mel ni dinjeer ñu ne la bii mooy indi cat ñu jox la biteel bii ñu ne la bii moo lay musal ci accident yow ana iyaaka nax bu du wa iyaaka na saxin fàtte nga yàlla mi nga ne woon yow dong laay yaakaar yow dong laay sàkku ndimbal moo tax seen problème yi bari ihdina siraatal mustaqim mooy yàlla yow teg ma ci yoon wu baax wi yoon wi nga xam ne ku fa tegu bu ko wàccul jëm àjjana ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anamta alayhim moo gën nga may teg yàlla boo ma teg ci yoon wu bon wi nga xam ne nii mooy yoonu musiba bi wala daalin mooy ñu sànku ñi ñi nga xam ne ëllëg yombal xiyaam duñ fa jëriñ dara ñoo nekkoon ci àddina ku leen wax mooy jaaru yaa seen agence mi suñu fekkee fu ñuy waxee diine ñu fekkee fu ñuy waxee lislaam su ñu fekkee fu ñuy waxee loo xam ne nii nit ñi dinañ ci jëriñu ñu dugg réeral leen ne leen lii du dëgg lii du nangam ñoo ñooy wala daalin mooy ñi nga xam ne ñooy réeral doomu aadama yi di leen nax duñ leen wax yàlla duñ leen wax yonant bi duñ leen xamal diine duñ leen xamal lislaam duñ leen jàngal julli duñ leen jàngal woor liñ leen di jàngal mooy lu leen xiirtal ci seen bopp di leen di leen nax di lekk seen xaalis lu ñu am jox leen ko def leen ay dof nit ki nag boo ko tàggatee ci sa bopp ba mu nekk dof nga nax ko ba nga xam ne ni nekkatul nit nga xiirtal ko ci sa bopp ba nga xam ne loo wax mu ne dëgg la